laxasaayu di liggéeyal Soxna Jaara depuis 2005 ba léegi ñu def fédération bi ah, at mu jotit ñuy indi suñu àddiyee ci sëñ bi di indi àddiyee Soxna jaaro di indi àddiyee Seexul Xadiim waaw taxawaayu soxna yi day xam naa ne dina lottu ci wax ko ndax euh, taxawaay bu am solo lañ fay taxawaay ndax ñun dañoo yónni rek teg ñu ci bopp bi wante ñoom ñoo yor liggéey bi ndax bis bu set ñu ngi dajale seeni addiya weer wu dee it fédération bi daayira bu ne ma ngay dajale addiyaam ca booram ñu di ko def nag bu màggal gi jub si ñu ñëw euh, dajale ko ci benn palaas dajale àddee ji dajale xaalisu carte yi eh, boole ko mu doon benn ka am dërëm ak ka am ñaar dërëm ak ka am fifteen la ñu yemale boole yëpp mu doon benn ñu ñëw jébbale si ko muy àddee seexul xaddim ak àddee soxna jaara ak carte yi lépp lu ñuy liggéey Touba yi muy ndox mi orphelinat bi eh, Touba ci kanam lépp suñu loxoo ngi ci biir moom la ñuy def ah xanaa nag ñu gën a góorgóorlu rekk gën a laxasaayu ndax euh, liggéey bi moom liggéeyu sëñ Tuubaa bi fi nekk ak liggéeyu soxna jaaro bi kon la ngay jëlee sa dërëm di ko def foo xam ne yàlla bëgg ko yónnent bi bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko yaakaar naa nga ñëw ci daayira yi di ci def sa dërëm weer wu dee di eeru lañ lay laaj te di euros yi cinq euros yi mooy jëm si ci kër sëñ bi lépp ci la cinq euros yi mooy def si sa keesu daayira lépp looy def nga def ko kon yaakaar naa ne war nañoo takku ndax euh, lu day nii lu mat ay 60 million nga indi ko te bokkut ak carte yi yaakaar naa ne mbooloo mooy doole te mbooloo mee ko waral kon ñu góor góorgóorlu te ba fomi ndax dërëm ba ngay jël di ko def ci loo xam ne yàlla bëgg ko yónnante bu bëgg ko nga def ko ci liggéeyu sëñ bi ba ëllëg ak si yaakaar naa nga fekk ko fa nga jëm mooy li gën ah yàlla nag dimbale nañu ñun waa état li ndax ay xale dong ñooy nekk ci daayira bi daanaka ñun ñoo ci mag ñooy kilifa yi nga xam ne itam ñoo ci ñoo ko jiite ba suñu jonni tey jii tegaat ko ci loxo yi xale yi itam xale yi doon ñu am pasteef nag ndax kii soxna may jang mi moo topp ci man soxna awaloo mii topp ci man wante nag yaakaar naa ne liggéey bi ñoom ñii ñoo ko yore ak mbooloo ma ca ginnaaw ndax ñun dañoo topp ci seen ginnaaw rek di leen teete wante ñoom ñoo yor liggéey bi di leen ñaanal yàlla ndax ba ba ñu duggee état li ba léegi ñu ngi ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi soxna jaar bi dama leen di ñaanal yàlla daal liggéey bi yokk ba nga xam ne tey jii ñoom seeni doom lañ koy joxaat loolu laay ñaan yàlla ndax fii ñu teg seen tànk moom bu ñu ko dindiwul yaakaar naa ne ñun suñu xol sedd na te sant nañ yàlla sëñ bi waaw kañ jërëjëf jërëjëf di sant nag télévision bi bu baax di leen ñaanal yàlla itam yàlla def ko ay télé yu bëree bëree bëri di ñaan yàlla liggéey bi ngeen di liggéey ci télévision bi yàlla leen ci sëñ Touba wàllu soxna Jaara wàllu ci jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna